Wow! Wow! Wow! Wow! Wow! waaw Bouba Yeye Bouba Yeye ak Sina mi ngi doon jël ko wet gi lakkantaan ci wet gi buur mi ngi ci wet gi waaw waaw le tey jeudi 6 janvier 6 juin donc mois jëlal bés tey le jeudi 6 juin 2024 ñoo ngi fi ci benn braak open press bu Babou Malika mi ngi war a bëri le dimanche Oustaz face à Sokh bu ndaw Sokh bu ndaw la war a bëreel Bouba yee Bouba ñëw na open press open press bël bi ñëw na Bouba ñëw na jëlal jëlal jëlal mas ci wet gi jëlal mas ci wet gi waaw waaw bël bi ñëw na Bouba ñëw na bël bi ñëw na família. ak waa Malika ñoom ngay am noonu Bouba ñëw na pël bi ñëw na mbër mi ñëw na jëlal Petit Zé Eh, waaw Amindo mi ngi noonu. Abdoulaye day daw rek nee na. Bouba Seul. Bouba Seul nee Malika yëmbal seen doom a noonu. waaw waaw. waaw waaw dugg si mi ngi pël bi ñëw na pël bi ñëw na pël bi dugg na buuba ñëw na mu dàq ci wet gi waaw waaw buuba yee pël bi ñëw na pël bi ñëw na jëlal bay sam ci wet gi waaw waaw pël bi kese buuba yee open press open press open press bu Malika pël bi ñëw na dugg si na ci open press bi tey la tey jeudi 6 juin 2024 waaw waaw ñoo ngi fii ci benn braquet ay Noumadhi Vous voyez, quel con Quel pël bi en rouge blanc Adieu en rouge blanc Adieu en rouge blanc la jëlal cuk

Πάμε waaw waaw jëlal teg soog ci ginnaaw. Guèye de waaw waaw. barke yooyu dugub dama ne. Ibra ku def lu baax di wax. lii nii mooy yaa ko moom. dama ma ñëw ma ñëw ma ñëw. Ibra. yow na sa jàmm yàgg. dëgg neexul. foog maa daa bon presse si Abra li ngay def ci gox bi. waaw kay moo tax sax gars yi dina leer. ay ca Bouba jëlal bët bi. jëlal bët bi mi ngi noonu nga koy Bouba. बल्कि भाई उल्टा मैं उल्टे सामने नेला डे बेरे मैं बिना निको कोई गुआप मली क्या ओपन प्रेस ओपन प्रेस अच्छा you're pour buur a ngi noonu ndeysaan fait un grand pour mi ngi noonu mi ngi ci organisation yi ko pour buur mi ngi ci organisation bi ndeysaan na lépp jaar yoon bu dara débordé bu dara débordé ah Maloum Seras am na combat Nandi Fall Nandi Fall yàlla tax nee na nga am xale yu si ñëw te bu dul tegoo ne du ñu yooyu ñaar bu baax nee na ngeen toog yéen ñëpp yeggu leen siis gars yi yeggu leen siis du ci mën a am coono yeggu leen siis ama yeggu leen siis gars yi wala lu ko jaawal sama mag ji dina jël léegi suuf kaay attention maa ngi seen lampe seen la xam nga luñ ko war a lampe seen la maa ngi leen di gis ñu fekk yéen a ko moom ay fa ala ji waaw léegi dañoo bëgg

Whoa! arrière wala day di taxaw waaw léegi da ngeen di taxaw normal nag waaw na yaatu nag attention bu leen weer kii daan naa ko chaque fois li mu war a tënk lañ koy tënk. gars yi dama bëgg nag ñëpp ñu defal programme bi tënk ko tënk ko. Wow wow wow waaw koreografi koreografi chorégraphie Bouba mooy Bouba Malika boy wàññi koreografi noonu Pape Gueye Boy Ka bulldozer mi tahu, taxaw Yuama wow wow Zenga mi ngi noonu ci wet gi Boy Joola ci rang Arnas maa ngi koy seen Jaay Perek mi ngi tirant yi waaw waaw chorégraphie chorégraphie booy bu baax jëlal see mi ngi tirant yi mu tax maa ngi ana coach Mbel mi ngi ci fekk jërë nga ci mbéy sax yaa ngi la mag ah. balan si ko aar Ndiaye ñëwoon di. bu doon sàmm yëpp ci mbay maa woon gën a ñaari Bouba la. Bouba bu bu yëmbal moo woote open press. Bouba bu moo woote tey. jëlal Baye Zam jëlal Baye Zam ah Boyka waaw waaw ba Gouy Gui mooy Boyka Gouy Gui la mooy Boyka Boy Jaxaw mi ngi noonu Boy Jaxaw bu benn braak ak ko fon ak Boy Jaxaw bu bu Thiès ak Jaxega Boy Jaxaw mi ngi ñëw Bara Gris Bordeaux mi ngi noonu organisation bi jëlal naar ci organisation bi la mi ngi ci ginnaaw ndeysaan rakk la ci buuba Marley Junior Marley bu àll bay ñaax maa ngi koy seen ci ginnaaw Guèye de buuba mi ngi noonu pël bi nga am noonu nee na dafa am doole nee na dafa am doole mi ngi noonu koy buuba mooy bi l'adversaire de Sokh bu ndaw le combat est prévu pour ce dimanche 9 juin 2024 à l'arène nationale waaw waaw buuba bu Malika face à Sokh bu ndaw tey et du 6 juin 2024 ici à Benn terrain Aïnoumadi. open press Bouba chorégraphie chorégraphie chorégraphie chorégraphie Bouba ziar ziaratan mbokk internet yi nuyu nañ leen ziar nañ leen fi ñu leen daan nuyoo di leen wax ne tey dañ déplacé waa ah, ñëw bu fii ci Malika benn braak yëmbal tey la euh, jeudi tey la jeudi 6 juin 2024 ñoo ngi ñëwoon terrain Aïnou Mady ah, open press pël bi Bouba pël bi Bouba bu écrit yëmbal marin moom la ñëwoon seet si tey mi ngi war a bëre le dimanche le dimanche 9 juin 2024 à l'arène nationale waa écrit Malika mbooloo noonu la fa demee Bouba Malika Mbolo le dimanche 9 juin 2024 à l'arène nationale face à qui face à Sokh de l'écurie Pikine Falaye Baldé Nous nañ fait comme d'habitude hein. open press comme d'habitude Nous avons def show nous avons chorégraphie pël bi wane na instant bi ñu question réponse Bouba questions-réponses. ñu lay waaw kontaan ba di sant jëwrin Mor waaw son na suñu combat bu baax a baax di sant Zoro di sant sama sëriñ nag sëñ Basirou kan di ko ñaanal gudd fan ak wér waaw di ko ñaanal yàlla fi yàgg te wér su fi yàggee léppay baax incha allah. loolooy loolooy nuyoo bi. waaw Bouba Pël bi. pël bi waaw moom lañ jàkkaarloo. waaw pël bi ñu jàkkaarloo tey waaw. pël bi ñu xamoon. waaw bu ko raw moo nekk nii tey. waaw pël ba woon ba woon pël bu garaaw bi. pël bu garaaw bu gën a garaaw bi nag moo toog nii tey. waaw comme d'habitude ah comme d'habitude saa yoo jëlee combat ñu ne tey nga dee te yow man jàpp naa ne loolu moo lay neex yow sa staff ak ak zoro ak ñoom ñooñu man gis naa ni ay combat choc moom ngeen di choisir comme toujours bii nag da cee raw parce que da nga te wa yëmbal benn braak Malika musunoya yab waa Pikine lu tax nga dugg Pikine waaw naa xale lañ rek waaw nekk si entraînement yi xam lu ñu war ñu def nañ fa duggaat fa waaw koñam dugg naa fa génnaat duggaat fa waaw laat cité waaw. écurie Bathie Seras. waaw dama fa dugg génn dama fa dugg génnaat duggaat fa dama koy comme lu ma fa defoon rek laa fay defaat bu ko bu euh, baax comme d'habitude ah ku la xam xam la ci ñeme entraînement loolu ñëpp ko nangul macha allah yàlla na la yàlla fal cat ñëpp la nangul ñeme entraînement ñëpp la nangul sa am fit ñëpp la nangul aussi sa mën a bëre koo bëreel boo ko daanee top 5 nga koy dugal mais nag mais nag mais nag attention. bi yoon da nga jël une bête euh, une bête blessée ko xamné jambar la ci bir jambar yi nek ci yoon bañ na dem na dem na dem na mu béré grand combat sox bu ndaw lay wax le 17 décembre 2022 le gëj béré bëree mak ak Talfa grand combat Talfa freiné ko défaite bi metti ko tellement dafa tok un an et demi at ak juroom benn weer la toog bëreewul décembre 2022 le gëj béré ñogi 2024 ñogi juin 2024 un an et demi la tok défaru wat défaru wat bané baxna mu ne nañ ma jox boy bi gëna ëss ci boy ñu ne ko bu baab malika mo fi nekk mu ne jox leen mako kon instant bi sox bu euh, sox bu euh, sox bu ndaw dalaa jël pour fayé la bor bi manam dafa amel bor ay supporteram am dalaa jël pour fayé la bor bi est ce xam nga lool man sox bu sox bu ndaw dalaa jël pour fayé la bor bi sox ndaw ma duma fayé kay bor sox ndaw dama ko fekk ci kamu gi dedet dama ko fekk ci saaku yi jël ko lu dama jël ko nak gaa ma jël gaa yi ma bañ a jël samay morom ñu ma doon wax suñ ma nangoon jël man du ma àgg si soog. am na ñeneen ñoo xam ne ñoom nga sible woon yow ak sa staff. waaw am na ñu ma doon wax si ñoom la yéexewoon si ñoom la desoon waaw dañ ma dañ may dañ may daw ñemewuñ ma léegi ma xam ne sa waay moo fa def te mu ngi si saaku yi ba ma jël ko may ko loxo delloowaat ko fa. benn defet tegalewul ñaari defet tegalewul ñaari defet tegalewul ñaari defet benn defet premier grand combat am la bëre Talfa daan ko ko daan boobu daanoogul kon nekkul ci saako yi. waaw saago la nekk mu si kaamu gi dama koy suul ah, buba buba buba damay la gars yi boo yéen bëri ngeen wax de may la ma tuuti rek dama damane dama ne buba am nga bëre techniquement booy est-ce que am nga bagage technique bu daan soq bu ndaw sook sook est am nga bëre bu daan soq bu ndaw man ñi ma bëral ñi ma ñi ma bëral fi ma jaar ñi ma bëral ñoo gën a ñoo ñoo soq doole ñoo ko dàq bëre ñoo ko gën a diis est am nga bëre bu ko ñoo gën a tàng. est-ce que am nga bëre bu ko daan. question bi damay ñëw ma ñëwoon ko sama open ma tegal leen lu waaw ah? bii waaw waaw lépp fekke naa. bii ay raw. loo waxoon def nga ko. bii day dugg top 5 fala ko jàpp daal mu ne force day waaw waaw waaw waaw. waaw yi may nañu tuuti rek dimanche yàggatul ah, dafa mel ni dafa mel ni top 5 am na borom ah buur. bour dafa melni légui top 5 dafa am borom dafa Bouba Boumalika, Malika top 5 n'est-ce pas Oui, oui. moy mooy Wow, un mois Wow, maa combien kon jour le instant jour J, dimanche le dimanche 9 juin 2024 arbitre sifflé Je bu ndaw la ci biir ne la Bouba eh, nga maanaam bu la woowee ci bëre teg teg yi wure ganjël looy def. non soog moom bu ma maa moom ñu bëre de dama bëgg ñu xeex. bu du ma bëre ak moom dama koy nook damay xeex moom dama koy duma sekkuma moom bëre. Mm. sekkuma moom bëre duma laa sekk moom. saa bi nee fu mu soog saa bi nee fu mu taxaw ma fekk ko fa. waaw fu mu taxaw ma fekk ko fa. damay dox si kawam dóor ko góos duraañ mu daanu. xam nga ni li ngay wax ni sox bu ndaw dina ko seetaan waaw sook ndax su ko seetaanee tamit dara du mujj fenn lu ma ko wax nag lii may wax moo am rek sook soo taxawee sar bi ne prix foo taxaw ma fekk la fa dama lay duma daan la li ngay li ngay bañ laa lay def la force waaw xale bu ndaw la li ngay bañ laa lay def voilà force waaw seen li muy bañ nga koy def par la force par la force seen naa waaw di sant di santaan ñëpp di nga sant di nga gërëm da ngaa commencé booy booy di nga sant di nga gërëm defal ndànk question yi jeexagul da nga ne jour ji fu mu taxaw fa nga koy fekk te li muy bañ loolu nga koy def. par force mu neex ko mu nakare ko. fan nga jëlee loolu foo tibbee loolu lan moo tax nga gëm ne arbitre day siffler nga fekk ko fa mu nekk jàpp ko def ko lan. dama liggéey li ma liggéey du pour moom li may entraîné du pour sook billaa wala li may entraîné du pour sook man fi ma teg sama laam sama fu ma teg sama bët si laamu du sook bu ndaw moo may téye. fi nga teg say bët ci làmb du soq bu ndaw. non non du soq bu ndaw man du maag moom le 9 juin le xam ne du maag moom maa ngi si ginnaawam la. léegi bu ñu dellu siwaatee yëmbal bu ñu ne yëmbal nag bu ñu ne yëmbal mooy yëmbal benn braak Malika benn gox la nespa ce waa yëmbal dëkk la lëmb yëmbal yaa tuuw mais buur buur yëmbal dafa am ay phénomène yëmbal dafa am ay phénomène dafa am nag ñoo xam ne instant bi dañ gëm ne yëmbal dafay téye làmb am na ñu gëm loolu te man book man man parmi le espoirs de yëmbal waa ji toog sama dafa bokk ci ñi ma gën a wóolu ci entrenement ci fit ci mën a bëre ci lépp mais aussi dañu commencé gis mobilisation parce que mobilisation Pikine lañ ko xamee woon. Géejawaay jàmm gën feneen ak feneen mais yëmbal dañu tàmbali instant bi buñ jugee arène nationale ñu ne wópp gis nga doomu yëmbal bi li mobilisé. Bouba mii da cee bokk léegi nag mbooloo mi dafa am lu koy lu koy accompagner parce que Bouba bu amee mbooloo mbooloo mu bari lool macha allah yàlla na ko yàlla na ko cat seexlu mbooloo mi taxaw. fekk amuñu autorité yu ci jàpp ci bloc ticket yi amul ñu ko jàppale ci bloc ticket yi booy yi danañ dem arène mais ñi fiy des ñooy ëpp te loolu pertement la maa ngi ñëw ci yow maa ngi ñëw ci yow buubaa buubaa buubaa mbooloo mi mi ngi fi mais est-ce que bi mi ngi fi est-ce que am nga bu doy bu war a mën a tax jour ji boo yi fi taxaw ñëpp am ticket ñëpp am kaar yu leen yóbbu mën a dugg arène nationale boo téenee xool ca kaw gis leen ñu yëngal ci kaw yow nga fas yéene matal ko ci suuf est-ce que am nga est-ce que am nga jàppale bi. waaw jàppale am nañ ci tuuti rek. waaw gars ñu ngi jàpp ci affaire yi tuuti waaye gën na des na daal. des na des na waaw. sañoon gars yi gën see jàpp. waaw suñu sañoon gars yi gën see jàpp. autorité waaw ñëw jàpp ci gi jàpp si kaari yi. waaw ay monsieur le maire. monsieur le maire euh, monsieur le maire Ndaw waaw. ñu ngi koy woo si laamu ji mu ñëw jàpp si. waaw jënd ci boole gi jël ci kaari yi gën a mën a dem stade waaw. bëgg nga daal gars yi ñëw jàpp ci parce que yow li la war yaa ngi ci yow mbër mi li nga mën mooy entraîner li ci des mooy gars yi ñoo ci war a jàpp buur buur buur yow ku la xam-xam na ne staff bi yow ak laay mii yow ak laay mii yenay mën a dese yenay milieu de terrain yi yenay jële ci défense bi di yóbbu ci attaque bi man je vous connais très bien bi booy bi nekk xale bu ndaw boobu lañ leen ràññee ci wetam am na ñeneen nag am na zoro zoro daf may woo téléphone des fois yaa ngi may dégg ci avenir booy bi mais yow sa wàllu bopp côté côté côté mobilisation yéen boo leen mobiliser boo yi taxaw fas na dem arène fekk amu leen assez de billets amu leen assez de car loolu problème la buur loo yokk ci loolu. waaw di siyaaraat ñëpp du nuyu ñëpp rek côté mobilisation moom li ñu ci wax di ko waat ku ci mel ni suñu gannaaw Lamine mi ak gannaaw lamp sëndam yi waaw ñoom lañ jiital ci lépp daal suñuy mag lañ suñuy gannaaw lañ di woowaat ñëpp dina benn baraak xam wax ba Kër Masar ba Buun ba ñàkk rob ñu ngi woo ñëpp ñëw jàppale booy bi dafa am cër ci làmb te dafa war a jëli ba mu amna luñu wané won ñepp woon ñëpp ñu ne tey mu dé xam nga wax Modou mbay do ko top 5 1 mois wama téléphone dugalaa ko 1 mois 2 semaines ba Tapha Gueye wax ci lu graw kon manam ki ni lamb da ci bokk da ci am cër bu wa lamb da ci am cër te lim ci am da koy jël de inshallah rabbi di wax nak li dess li dess ci ñun la dess rek ñun ñi nga xamanteni ño ñoo juk a jug képp koo xamante ne yaa ngi yeewoo fii xaar bu wa woola ci dara wala gaay yi ci dara xam nga wax paré nañ fépp pare na pour jël li mu moom ci làmb te du Sokh moo koy téye déedéet li mu pare pour jëli ji ko ci làmb ak nodd bii nii li mu pare pour jëli ji ko ci làmb non du Sokh kese moo ko ciy téye. Bouba Bouba coach Mbel ku ko xam-xam ko ci maanaam nekk coach boo xam ne amul yërmande ci entraînement coach Papa Sow noonu est-ce que instant bi xel dal na ci entraînement écurie Malika Mbooloo est-ce que instant bi sa xel dal na ci entraînement. waaw seen naa pare nañ fépp pare nañ si lépp. billaa walaay suñu xel dal na si ci lépp waaw tey gis nga benn baraag Malika tal bu xonk tey ñëpp a tey ñëpp a génn ku mel ñoom Garant Lamine tey jàpp nañ ci open presse bi sonn si bu ñoom lamp zënd ñoom buur waaw ñoom mbaj ñoom aada ñoom laat billaay gars yi jaas dañoo sonn tey si open presse bi ñoom ñu ngi siy jàpp bu baax a baax a baax ñoom amer ñàkk waaw gars dañuy jàpp si waaw ñu ngi jàpp si kii bi mafia bi waaw mafia bitig bi dof bi ma fi yaa ëcc bi Ndiobène Manko Patal Ndiobène Diso Tali Karo bi tey ñëpp a génn maanaam yëmbal Malika Kër Massar Boune Niakurop tey ñëpp a ñëw si open presse bi ndax lan bëgg ma bëgg maa jàppale daal bëgg waaw ñu mun a dem si laam waaw di wo ñëpp nag di woowaat di woowaat sëñ Fallou di woo waaw Moussa Mbaye di ko woo si laamu ji waaw la maire waaw ñu ngi koy woo si laamu ji bu baax pour ñëw jàpp si liggéey waaw di woo ñëpp baawuñu kenn waaw di woo Mor Ndiaye doom benn baraak waaw di woo Ifra waaw di woo Ifra mu ñëw jàpp si combat bi waaw jàpp si biir bu baax a baax a baax. mais pël bi pël bi pël bi le 9 juin à l'arène nationale victoire le 9 juin fan la la mën a yóbbu. waaw fu ñu mën a yóbbu sori na fu ñu mën a yóbbu si laamu bari na waaw fu ñu jëm suñu génn su ma su ma daane sokk le 9 juin. bu gars yi dañuy xëppi di xool. dañ xam fan laa bokk si làmb. di gars yi waaw gars yi presse bi presse bi question Feuz ñàkk caaxaan y a pas noonu la fa demee waaw yaa ngi ci woon kon. kon waaw benn instant tamit benn instant tamit ñuy rafetlu ah man damay rafetlu connexion bi yëmbal benn braak Malika ba Kër Massar maa leen maa sam gis naa fi armée gis naa fi armée seen mag la gis naa fi Boy Diop numéro 2. nay gën a rafet gis naa fi bulldozer bi ma accès su ma jumul fi ko fekk bulldozer bulldozer yaa ngi may dégg ak ña ca des tamit mënu maa lim ñëpp mais gis naa nuñ taxawee euh, bokku ndey bokku baay moo leen ci génne bokku ndey bokku baay moo leen ci génne bu kenn jaayante kenn dara yaa may dégg bu Boy Diop amee combat supporteru Bouba dem supporter Boy Diop bu bu Bouba amee combat supporteru Boy Diop dem supporter Bouba armée bu amee combat loolu moo war a sax nag yàlla bu ko dara yàq yàlla bu ko kenn yàq bu armee amee combat yéen ñëpp ngeen xam ne armee seen mag la moom moo njëkk a jël drapeau drapeau benn braak armée da koo yóbbu fu kawe ngeen delloo ko cër bi mu moom ku ci ne jox sa morom cër bi mu moom li ci des nag damay laaj rek lan ngay tëjee ñu waajal le 9 à l'arène di sant waa Espire waa Espire borom folakaas yi waaw. Momar Tall Momar Tall 44 Momar Tall bu 44 actuellement mi ngi cité Sokabek. waaw waaye yàlla jooju noonu macha allah. waaw di sant waa Esprit bu baax a baax di sant waa Esprit bu baax a baax ñoom mbës waaw di sant Abdou Abdou sama benn grand la day jàpp sama combat da si sonn bu baax di sant nag suñu waa Igri waaw suñu waa Igri jàpp nañ si combat di sant sama kosu ak Igri Malika Mboolo di sant sama kosu Mbel ñoom Papi kosu yëpp waaw ñoom Bamba mhm. gars dañu jàpp nañ si combat bi son ñoom Bildazer Boy Malika ñoom Cargo mhm. ñoom Malick Niang Molo Jaay waa écurie bi sant naa leen bu baax jàpp nañ ci combat bi sonn nañ tey gis naa écurie bi yëpp waa écurie yëmbal marin benn baraag waaw ci ko mu tàkk mhm. Baye Zam mhm. noonu la demee ñoom lakkantaan ñoom waaw Pape Guy gi Pape Guy gi Boyka waaw moom tey sonn waaw tey ñëpp waaw waaw nof yaa rekaar waaw di sant waaw mbii fa ñëpp nante yëpp ñoom zobos kante bu Jóob waaw gis nañ lépp gis nañ taxawaay bi kontaan nañ si moom waaw am bu buubaa am bu buubaa gis nañ taxawaay bi kontaan nañu bu baax di woo seexu bu yëmbal ah waaw di woo mbayaari waaw mafia géejawaay bi ah waa géejawaay maa ngi woo mafia ginaaw sama mafia pikin bi maa ngi woo waa salle de bi ñoom muntaga mafia bi waaw ñëpp maa ngi leen woo ñoom lëz waaw noonu la dem pikin waa tool ba waaw maa ngi leen woo si lamuji ji waaw noonu la demee pikin ñoo dalal de waa pikin eh yow à l'extérieur ngay bëre ji waa Pikine cox bu ndaw moo lay dalal à domicile. waaw di woo waa Ibrahima Jula si laamu di woo Kang Ferrailleur waaw waa Pàcc Kang Ferrailleur waaw ñoom laat bàyyiwuñu kenn waaw ñoom Njaga waaw Poura Poura maa ngi sant bu baax Poura day sonn sama combat ak Modou ñoom Modou dañu sonn sama combat waaw gars ñoom Papa ñoom Papa waaw ñoom Capa waaw sa waay waaw lës bi yaa fii waaw lës bi yaa fii day sonn suñ ko waaw da ci jàpp waaw di sant Tino tamit jàpp na si combat bu baax a baax a baax waaw ñoom Lamine waaw ñoom Lamine Diawara lambu zënd waaw maa leen wax waaw foofu la nañ jàpp rek waaw affaire day gën a ñëw léppay baax